pour ñu bi jeex na ba pare. léegi de xanaa li ma ciy wax rek lii fi xew moom ñun ñëpp ñoo ko gisandoo mais li may woo askan li may li may woo ci askan wi mooy ñu ñu ànd dal te xam ne nit di yor ndawam di ko yàq lii fi xew yëpp ay xeetu provocation la. ndax takk der yi am na ci ñoo xam fee ñëw ngir def seen liggéey mais am na ci ñoo xam fee ñëw pour nekk ay militant APR pour fas yéene. APR gagné Touba mais loolu du mën a nekk c'est malheureusement li wax suñu militants yi ak suñu sympathisants yi ak yi a vigilant te génn ci ak ak weer ak teggin nga xam si a assurer sécurité bu nii lan a na ci ñoo xam dañu fay ñëw ngir def dañoo bëgg APR gagné ndax ay doomi Antoine Diome lañ mais Antoine Diome li mu digoon Macky Sall na xam ne tey fenn du ko fi du ko gañe ba dafa ñëw jënd ay gor wa ilaa mu fekk ay jaam yi gën a tekku dara mu jënd leen ñu jox ko xaalis mu dikku ne ko dangay gañe Touba waxut dëgg du gañe Touba service de renseignement xamal nañ ko Touba doo fekk si ñun dinañ ànd ko dal génn woote massivement gañe dëkk bi la fii ak 18 heures ñu génn civil incha allah